dëgg jëf mbokk yi nu ànd sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci sangam ba Seydina Muhammad salallaahu taala alayhi wa sallam euh, àndandoon yéen ci seen siyaar ak seen télévision Mafatihul Bichri TV la télévision islamique au service de waa kër Xaadimu Rasul mbokk yi xam ngeen ne euh, Serigne Moussa Ka dafa wax ne dogoon ko nag demam bi wolof nasaraanu tekkoon billaahi ñëpp dem niiraanu euh, loolu di sunu tawfeex di sunu mbégte fii ci 18 safar tey jii nag ñu àndandoo ak sëñ Darou doon wax naan saakal ba yu la ji albari on faddalahu ala kasirin maman hazul maziyaati jikko yu rafet ya jikko yu tedd ya jikko yu màgg ya jikko yu sell ya waaye toog ci keppaar gu tedd keppaar kan Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ñu ñaan suñu borom mu gën nu koo fayal te gën noo booleek moom teew fii nag ci kanamu Serigne Ahmadul Mokhtar moom Cheikh Mouhamadul Moustapha nu ñaan yàlla itam suñu borom subhanahu wa taala gannaaw ban ko ñaanalee magam ju baax ji nga xamante ni moo di léppam di xolam di dënnam di ay tànkam di loxoom di léppam muy alhaaji Cheikh Sidul Mokhtar yàlla na fi yàgg lool te wér noonu lañ ko ñaanalee moom itam suñu sang bi sama borom may ko gudd fan may ko wér dollu suturaam dollu barkeemam dañ gën koo dëgëral bi xurmati Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim barke Cheikhul Khadim kon mbokk yi xam naa ma leen wax kan mooy la wuy géej gaa ngi am xaayaani ngi mooy woy bakaay ma jox rek sëriñ Bay la mu gën cee xuus wax ñu kan mooy doomi soxna Aminta Lo Diop bisimilah. bismillahi rahmaani rahim wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci kàddu Cheikh Ahmadul Muxtaar wahaballahu lahu ma lahu xtaar xalifat Cheikh Mouhamadul Moustapha awalu xalifati xadimi rasul di leen sargal fii fii Daaru Xuddus bayti ci bëccëg bu tedd bii nga xam ne bëccëgu mbégte la bëccëgu màggal di si safar la euh, naka ko tedd ki digle woon sant képp ku bokk ci moom walla ngay soppe ba tey benn la bis bi saa bu ñëwatee ñu màggale ko ko santale ko ci yàlla boroomam ci xéewal yu rëy yim nu defal yoo xam ne defal na ko ko te xéewal yëpp jëm si waat ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi mu mel ne bis boobu cosaan li day fii ci kër gi tey fii ngeen ñëw nii muy daaru xudduus di jàkka ji ndax umpaliwul la ne dégg ngeen ci kàddu Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu taala anhu ibnu Cheikh al mu wax ne fii ci jàkka ji la sëñ Touba doon defee li atikaaf ba yonent bi see eh, feeñu ko gane ko ànd ak waa ahlu badar fii la ko joxee xutbaani yoti gi nga xam ne ba mu koy jox booba at yi sax matiwu ko ca la waxanteeg moom la waral màggal gi tey fii la ko xamala ne ko bëggoon na maa bokk ci sa and bii nga xam ne duñ teexli ko yow benn yoon muy ahlu badrin bëgg na nekk xadimu rasul ba faw bëgg na it ràmmu mboolem ku bokk ci moom gannaaw bakkanam moo bañ a gis lenn lu koy tiis waaye mu dal tabbi àjjana yooyee jaayante yooyu la sëriñ bi siñente ak yonent bi sallallahu alayhi wa nangul ko ko jaayante ko ak moom fii ci jàkk yi daaru xulus ji ci kër gi kon mel ne bu ñu wootee màggal gi di ko màggal si Touba bërëb bii am na ci cër lool am na ci pàttaliku ndax fi la lépp sosoo mooy lieu di pacte de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba yàlla dogal ku tedd kii di Cheikh Ahmadul Muxtaar di borom barab bi tey yilife ko ne ko Xaadimu Rasuul yilife woon Cheikh Moustapha yilife ko noona magam di tedd yilife ko noona tey loola ne ci loxoom ñu teew fi kanamam di sant sun borom bu baax a baax di Euh, bisub mbig la kon ñu ngi ciy sargal jullit yépp leen ci ndokkeel bisub berne la ndax noonu la ko sëñ bi waxee woon li dale ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay man na ma ko defal ci bis bi santale ma ci yàlla déggal ci njabootam loolu it waral na moom mii di boroom bërëb bi lépp war ci bis bi def na ko kër yi Cheikh Moustapha yëpp fu ne loxoom egg na fa ak lam fa war a eggee la dale ca nag ya gëléem yi sax ba ca xar ya lépp ak la ca war a aju fu ne yable na fa yónnee fa la fa war kër gi it fa tabaarakallaahu dara jeexu fi muy loo xam ne kon ah, noonu la ko doxalee nu ñaan suñu borom mu yàgg koo doxalee noonu nu yàgg koo ànd ak moom di xam ne ne ki mu wutu nag muy Cheikh mu al Karim mooy jëmm joo xam ne li mu def ci yoonu sëñ Tuubaa yi boo ko ca génnee rek day mel ne dara du ca des ndax sëñ Moussa Ka mi ngi koy tënk donte la mu koy tënk-tënk lépp dugul nee na moo andi raay bi moo fi def jumaa ji mu indi Seex Bamba ci biir mooy waa ji kon la tax nuy màggal si Touba Cheikh Moustapha la ndax kin fi fekk si moo ko fi indi bu du woon moom kon feneen la ñuy màggale ji waaye bu ñuy woote Touba rek kon jëmm ma tax ab liggéey ma tax yoon wi moo ko xàll ngir moo andi raay bi Touba ci jamono ya nga xam ne euh, aw xàll sax woo mën a jaar jafe woon na moom mu xàll raay ba mu si Touba jumaa ji nga xam ne mooy mbégum lislaam moo ko liggéey tabax ko ba mu ne sàng teg ko ci yoon jox nag rakkam ju tedd ja Cheikh Mouhamadul Fadil mu wéyal liggéey ba ba inauguré ko jox rakkam ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gis ngeen mu yokk ko ba noonu la ko joxe Cheikh Abdoul Xaadar mi ko daan jiite ca sell ga jox Cheikh Saalihu Mbacké mu melal ko nii mu ko melal mottali liggéey ba as saalihu la si yu kammilul amal. door a jox nag ñoom sët yi nga xam ne ñoo fi si tey doon na maam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cheikh Sidel Muxtaar mi nga xam ne nag mooy jëmm ji muy moom muy moom ñoo bokk lépp ñoo bokk seen Cheikh Moussa bokk seen sëñ baara bokk soxna Mintaloo bokk Serigne Touba di Ahmadul Muxtaar ak Sidel Muxtaar kon nu koy ñaanal mu yàgg fi moom magam jooju te wér fa tabaarakallah di ndokkeel judit yëpp kon Cheikh Moussa Ngoog ci tënk mooy tuuba mooy Serigne Touba. mooy doonay sëñ tubaa fa tabaraka wa salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Bay la Ngoor kon ni nga ko leerale noonu noonu ko sëriñ Basiru moom Cheikh Mamadou Lamine Bara leerale ci asalam moo wax ne sëriñ Mouhamadul Moustapha mooy borom Touba dafa wax ne dafa am koo xamante ne ni dafa mooy mës ñëw ci sëriñ Touba Xaadim Rasul ci njaareem ne ko yaa ngi toog yaa ngi toog njaareem waaye Cheikh Moustapha nga tubaa di maye ay kër di maye aw fas di joxe ay hidaay mel na mooy borom Touba sëriñ Touba tontuwu ko sëñ Bassirou Bara nee na mu dellu waxtu ko Serigne Touba Serigne Touba tontu ko ba muy ñetti yoon ba may ba ca ñeenteel bi mu ne ko diw kaay ma wax la mbiri Modou Moustapha Mouhamadou Moustapha mooy borom Touba ndax xamul tax ma wax la ko nee na mu ko déedéet nee na mu ne ko keroog ba dogal ba tàbbee ba ma sama borom waxee la ma wax su nanguwutoon a dem man mi may dem te su ma demee Touba du am kon nag Cheikh moo Moustapha mooy borom tubaa looloo tax Serigne Moussa ko wax ko li mu ko wax ne ko xutboo gi gaa yi la wuy siwul dañu laa xamul géej gaa ngi am xaayaani ngi mooy wéy ba kaay yaay baxalu xaqiixatu wa saarixatu wa nada mawdun yafoorun lil wara yaa jenn waay yaay mbaamulaan baxalu nada sangu leen tëdduy yaay ndox mu teey ku la tàbbi tooy ku la manditaay mu mel ne ca tàkkusaan itam daanañ ko wax ne ko yaaram bi yaa mën a dëkkal ne nan ko siw ci sunu xol koo ne dëkkal mu ni muy ku nu fal ma yaa dàqee fa këram fal nu nufal fa sunu kër koo fal mu doon xutbub zamaan defal ñu ba seddi tijaan muxtaari xeeri jamono yaay ñam ba mel ne ay ñaloor lewet ba mel ne dexu Podor yomb ba mel ne gerte gi ni joor tibb bi dal na ñëpp am say bunte jar njëkkante xeex goobar yi dal ku ne di xeex say bunt laa ne dootu feex ko gis mu naan xaaral ma ñëw kon Mbàkke ñun ñëw nañ ma fa taxul Bichri TV ñëw na ànd ak sa njaboot gépp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ñaanal la wér ñaanal la barke ñaanal la sutura bi xurmati Seexul Xadim ba barkat Seex Ahmad Xadim Xaadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sant nañ bu baax a màggal gi wëllëri woowu laa doon feddali si géejaare naa fi moom mi euh, jokkoo ak moom téléphone waxaat moom wax li tax waaye sama xol ak sama xel mu fi su fee jóg wëllëri bi nag mu nga commencé ca kii Saliou Mbacké ambassadeur xaadim ambassadeur fa tabarakallah macha allah ma daan <clears throat> fekkanteeg ñoom bitim réew comme maa daan ndoxal mbiri ambassade yi ci inspection ma daan fekkante ak ñoom lu bare bare bare ci ambassade yi ñu nekk ñu fay weccante ma ay teraanga fa tabarakallah macha allah euh, ma rafetu lool seen liggéey parce que man dama daan def bu ma defee def sama rapport jox ko ministre bi euh, ñu may rafetlu loolu seen liggéey amul euh, mu mucc ayib waaw moom mi xam na ci ad kii nu mu tëddati xaadim dem si yàlla si bi muy bi mu nekkee euh, kii euh, jadda ay ay ay comptabilité kenn mu ci gën a dërëm xaalis ambassade bi du ci laal def fifteen <laughs> ba man sax dama ko ci daan ya daal ne ko nag kii dañ la ko jox pour ngay doxal ambassade bi jokkalanteeg yeneen ambassades yi wëlalanteeg ñoom fa tabarakallahu may rafetlu lool taxawaayam wax naa ko ko ne sa euh, xilaafa gi am mhm. naa yaakaar ne dana dana ko danañ ko ràññee ndax aussi euh, mbir li koy doxal mooy ki ko yore te ma ma xalaat ci euh, wàllu jikko ak kii wàllu liggéey mhm. vraiment sikku ma ma day sikku gisuma ku sikk waaw ah kon nag li ma koy ñaanal mooy yal na fi yàgg te wér yal na fi yàgg te yàlla na sëñ Touba kontaan ci moom. way juróom juróom góor yàlla na kontaan ci moom. tabarakallah macha allah ñu ngi kontaan ci moom lool. Mm. bu doon sama sago nag du ma fi géej. waaye yoo xam nga li ma téye <laughs> mais xel ma mos fay jóg ak yéene gi. jazakallahu xayran. salaatu lazi fi kulli shahrin wa